est-ce que xam ngeen na Karim Wade tey soleil boo ibbi journal boo ibbi Karim Wade moo nekk ca kaw. pour la première fois Karim Wade jàkkaarloog ay journaliste yàq lu mel ne xemek Macky sàll Karim Wade eh, commencé na campagne am ca ma ngay ñëw Sénégal waaye tey li mu yàq Macky Sall kenn mësu koo dégg ñu seeti Karim Wade. def Macky Sall dama ko dul may dara parce que lenn laa koy laaj mooy ñetti question benn bi mooy xaalisu Sénégal ci boppam tey xam ne bailleur de fonds yi ñoo ko ko jox ay nit ñoo ko jox pour mu doxal fan la dugal xaalisu sénégalais yi moom nee du nit guddi dugub rek la xam ak meew du nit guddi waaye mu ngi jël xaalis Sénégal di ko dundee bëccëg ndar kàmm assemblée nationale bi nga xam ne moom laa bëggoon moom la moom la sama papa waxoon nañ fa yóbbu Macky moom laay wax sénégalais nañ fa yóbbu Macky député yi laaj ko fan la dugal xaalisu réew mi Macky Sall moom ci boppam mooy émerger waaye Sénégal émerger Macky Sall pétrole bii mu jël jël raqam bi tëj ko fa taaj ko fa fan la ko teg lu tax Aliou Sall di gérer loolu ba pare ah. xaalisu réew mi bu ñuy dénkaane caisse de déposition de consignation xaalis bi nga xam ne moom moo nekk foofu pourquoi Aliou Sall nekk directeur bi Macky lu tax buy inauguré loo xam ne sama papa moo ko tàmbali woon du musa wax ne ginnaaw yàlla yonent bi Ablaye Wade moo tax lu tax muy def loolu fan la ko teg li muy uti Paris yàlla bu mu ko am li muy lijjanti France yàlla bu mu ko am li muy ñaan pour ñu jox ko xaalis pour mu defal ko Sénégal yàlla nañ ko gëntu mu ngi xalaat pour jëlee fa deux mille quatre cent quatre-vingt-six milliards ah. yàlla na fa jëlee deux millions maa ngi koy xamal ni ko du ma ko may dara du ma yombal du ma yoxooxi danaa dal ci koom ndax Macky Sall ci boppam dafa jël xaalis Sénégal lekk ko ne sénégalais laa muy sénégalais man sama papa sant Wade moom papam sant Sall gënul nekk sénégalais que man li mu bëgg man du ma ko may sama carte bi ñu wax dafa réer lijjanti naa ba am carte d'identité dinaa bindu ci liste électorale yi te dinaa voté ndax loi bi may na ma pour ma voté warkat yi nga xam ne ñoo doon ànd ak sama papa bi muy neex ñoog sama papa bi muy sama papa bi ñu amuloon dara moog sama papa ñi topp mag ci PDS vous êtes des wax maa ko vous avez trahi la nation vous avez trahi la mémoire de mon père sama papa moo leen defar ba pare ngeen ko doo leen dara doo leen tus laa wax danaa ñëw Sénégal yëngal gësëm ba mu saf sàpp laa wax mani mani mani mani mais Macky Sall xanaa wóolawul boppam mais moo tax mu ragal ma man pourquoi mu ragal ma pourquoi mu ne Khalifa Sall ak Karim Wade bokk fan la ko teg damay bokk ci nii bokk ci nale